doomu Pikine baa ngi noonu Ama. ziar ziar Ama Ama Ama réew mi yëpp ndeysaan dañ laa yàqamti woon. gën lañ laa gis nga def sotti dëgg dëgg la waaw gën a gën la rek dara xewul. dañoo nekk lan moy gën a gën. waaw dañoo nekkoon préparation ah, yi lu gën ñëpp xam nañ ko. Ah, waaw waaw mooy gën a waaw. <laughs> mais mais gis nga gis nga waa Sénégal fi mu ne nii nuñ toogee. dëgg la euh, di la jàppale ci combat bi nga xamante ne nii moom nga am. dëgg la tey jii boo toogee ba mu yàgg sentir ni nit ñi ñu ngi lay jàppale man yëg-yëg nga am. waaw xam nga xëy na nit delloo rek lu ma leen jox comprendre waaw di ñaan yàlla kontaan naa gis naa interview gis naa commentaire gis naa lépp. xam na di sant yàlla xam ne ñun ay jaam lañ. ay ndaw lañ ay champion lañ amoon nañu yéen a bëre. champion bi tamit amoon na yéen a bëre comprendre bu a baax. mais keroog bi ba nga xamante ni làmb ji li des bareetul daanaka une semaine la nga yëg sant yàlla xëy na nag metti na parce que xaw nañ ci fere def nañ ci lépp waaye si yàlla suñu borom moo ko nëmbee jaam daa yaa xam te ne waaye suñu borom nangu na bu yàgg yàgg di xaar leneen di xaar champion yëpp maa ngi fi pour champion yëpp. mais mais mais Ama Ba gaa ngi ciy jàpp fi mu ne nii kattanaa bëri woo. waaw sant yàlla rek. ay taalibe sëñ Touba lañ te doomu Fallaay nañ. pare naa pour bëre kuru pour kuru Balla ak Sa ah. ak waa Pikine pare naa bëre ñëpp. pare ñëpp. waaw. <laughs>